si la xibaar yu wérul ak manipulation di gën a am doole. loole tax ba ñu amal bi la ngir gën leen mën a ñaax ci mbir moomu la. waaw ndaje bi dañ dañ ko dañ ko organiser pour sensibiliser euh, journalistes yi parce que xam nañ ne journalistes yi euh, dañuy jouer role bu bu am solo bu bu mucc ayib ci démocratie démocratie bu nekk. Euh, def naa ne li koy téye li koy suuxat mooy mu am am euh, bu nga xam ne presse bu bu bu indépendante la bu libre la waaye bu responsable. journaliste yi am taxawaay gu am solo ngir jëmmal démocratie moo taxit war nañoo liggéey ngir ñu amal élection yi ci jàmm ndax élection présidentielle bi mooy bu njëkk ci taarixu réewum Sénégal bi nga xam ne ni ki koy organiser du ci bokk.